micro yàlla mooy joxe. moo ñu joxoon coon. yàlla moo ko jëlaat. moom yi bind. moom yi dogal. te kenn mënu ko moom. coon yegg na foo xam ne ci Sénégalais yi. mu doon lenn la. lu ko mën a téye ci kon gëm naa ne dina toog.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 ak ñoom bugaat ñëpp ma ne leen di courage ndax kilifa gu toll nii bàyyi su wàccee ay xale da ngay mel ni dañ la yóbbu ba ci benn àll ñu bala nga war a débrouiller génn ci yal na leen yàlla jàppale mm. vraiment am nañu tey euh, yeewu bu metti na ko yàlla xare àjjana vraiment am nañu tey lu metti metti metti ah Youssou banaaw ba nga déggee information bi information bi nan la la jox ba nga xëy yow dégg ko information bi moo yee ñëpp moo mhm. yëkkati ñëpp ci lal mhm. wàcc leen nga mhm. naan loo xamee ni bu xewee buntu amatul jóg rek mooy donc mbetteel day waar day waar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 ñu dem fekk ju ko balafon toog moom yëg ci kaw la sur la scène woy ba 5 heures du matin ñu pare ñu duggaat suñu kalandoo ñibbi Pikine dem jël suñu ndékki ku nekk dem këram li ma gën a neex ci coon nag sama diggante ak moo mooy sincérité bi nga xam ne moom la suñu amitié amoon xam nga amitié mënul weesu ku lay nemmeeku du yónnee ci yow di naan seet leen sama waaj ndax mi ngi si jàmm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 qui ne chante pas di def ay fausses notes. qui a une mélodie boo xam ne bii c'est exceptionnel mais en même temps quelqu'un boo xam ni il a compris très tôt que ni musique du rek entretenir les gens c'est quelque chose boo xam ne danga nga war a participer éduquer sa population éduquer la jeunesse en tout cas sur ce plan la je dirais vraiment Thione Seck zéro faute. Euh, yéen ñaar kan ngeen gëj a déggante ci wàllu kaddu yéen ñaar yow. matul matul weer. Mhm.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 inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di nuyu àdduna di wax ne tey monument moo daanu baobab moo daanu li dal tey si Sénégal si àdduna bi la dal muy suñu papa Thione Ballago te artistes ñoo ñàkk Sénégal ñoo na ko yàlla xare aljana di ñaanal nga damay dama koy metti bu baax a baax di ko naqarlu bu baax et puis di ci jaale sénégalais yi ah, mbokku sénégalais yi ñi nga xam ni bëggoon nañ ko ak ñi nga xam ni vraiment yàgg na leen bégal ndax coon defe naa ñëpp xam nañ ni icône la ndax euh, woyam yëpp daf ko basé woon ci ah, luy jub luy fàttali nit ñi seen boroom Euh, la preuve yéen sànq ba léegi bi ngeen di teg ay ay wóyam ak yooyu da ngay sentir ni kii vraiment message la woon euh, mu nekkoon sama grand sama sama mën naa ne papa sax ndax papa coon laa ko doon wax moom tamit caabi bi dama ma doon wooyee caabi bi rek saa yu ma gisee naan ma caabi bi mos na ma jël contrat yóbbu ma dafa man tourné ma nax Kumba Gawlo vraiment fay ma xaalis mu bari sama yaay aussi ba mu de ñëw na ba pare une participation bu rëy vraiment Euh, liggéeyoon ak sam papa aussi ah jot na euh, ablaay Mbuub moo ko indi woon euh, Star Band mu liggéey fa sam papa lu yàgg après Ablaye Mbuub jëlaat ko yóbbu ko at Baobab waaw nax vraiment mun naa ne daal Sénégal ñàkk nañ lu rëy rëy rëy rëy ñàkk la ñu rëy et puis coon ma ndax moom dañu am beneen lien boo xam ne ñu bëri xamuñu ko ndax moom coon bu ñu tudd Euh, sama maam lañ moo tuddoon coon kase sama maamaati maam moom nag kiñ ko tuddee coon euh, sekk la tudde kooku sama maam boobu lañ ko tuddee waaw kon boog mun naa ne am na lien boo xam ni vraiment moom aussi euh, daf si doon joué bu baax daal waaw daal muy perte bu mag a mag tey jii ci Sénégal ak ci li nga xam ni moom moo di wàllu aada ak cosaan rawatina wàllu musique waaw muy perte bu mag a mag a mag a mag parce que Thione Seck ku ko ku ko dégg xam ni mun naa ne comme ni mu koy waxee rek wéy bu doon tabax ay immeuble kon man moom ay gratte-ciel lay tabax xam nga ndax euh, vraiment li mu bàyyi fii ci Sénégal héritage bu riche bu rëy bi nga xam ni euh, loolu kenn du ko naatable loolu dafa doon loo xam ni tey jii ñi nga xam ni génération yi ñëw mun nañ ci tax ci kundiku mun nañ ci inspiré wu mun nañ ci liggéey lii aussi day wane ni euh, nit ki buy woy dafa war a wéy loo xam ni ëllëg bu demee dinañ mën a ne ah kii de li mu fi wéy de lii yëpp day yeete ndax boo seetee message am yi xam nga ci fii ba àddina di tukki moom message yi du du mës a du mës a du mës a du parce que lu mu wéy yëpp point poésie la poésie yu rafet la yi message yu rafet la yi nga xam ni euh, vraiment yu sell yi nga xam ni euh, tey jii mën na ne vraiment message la kon boog Sénégal am nañ perte bu rëy rëy rëy vraiment perte bu rëy waaw di ko jaale tamit euh, artistes yëpp sama bokku artistes yëpp ah ñoom grand Youssou Ndour ñoom Baba Maal ah, ñi nga xam ne ñoo bokkoon génération ah ñoom euh, Ismaël Lo ah euh, vraiment Omar ñoom ñëpp maa ngi koy jaale ay ay Souleymane Faye grand yëpp maa lañ koy jaale. ak tous les artistes euh, tous les artistes daal maa ngeen koy jaale quoi. bu di leen jaale ki ñu bokk di Thione Seck. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. ban seede nga mën a indi ci moom. ah bon xanaa kañ damay wax ne euh, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ba pare ba pare tamit euh, tey du ñun du ñun rek ñàkk. Mhm. dama naan Sénégal gi yëpp ñàkk àddina bi yëpp ñàkk. Mhm. parce que tey nouvelle bi bi mu bi mu jógee boo xoolaatee ni mu demee yéeme na. Euh, bon loolu nag euh, xam naa ne moom moom moo ko liggéey moom moo ko liggéey avant mu fi jógee donc euh, xam naa daal Sénégal ñàkk na àddina ñàkk na waaye man de ñàkk na man ñàkk naa koo xam ne moom moom fi mu toll woon ci man yéeme na neexula wax nag waaye ba tey rek comme ci yàlla lañ jóge woon di delluwaat ci yàlla dañ koy santawaat yàlla te nangu dogalu yàlla gëm waaw allo yéen en tant que euh, mu mu nekkoon mag ci yéen euh, nekk mhm. yéen ngeen nekkoon rakkam. Euh, mhm. ci wàllum jëflante bi ak wallum relation yi looñ ci mën a mhm. wax naka la leen taxawaloo. parce que xam nañ ne daanaka famille yi ñëpp ay musiciens lañ te bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo ko moo ko jëmbat ci yéen ba ngeen xamante ne musique bi intéressé na leen ngeen def ci ay jéego. waaw maanaam tey ji ñun ku musique ku musique ci suñu kër rek. ginnaaw yàlla moom moom moo tax nga musique. waaw man mii mu muy ñun ñëpp man man moom ni mu ci meloon ak man yaakaar naa ne nag euh, bu fekkee ne yàlla dëgg rek la bëgg melu ko ci woon ak kenn ak ak man parce que man ni meloon ak ak man wax dëgg yàlla euh, yéeme woon na lool euh, te tamit xatoon na lool nag te wax naa ko ko tout le temps temps yi passé rek maa ngi koy wax ak sama benn émission ak Pape Cheikh Diallo ma ne ko tey Thione Seck boo ubbee xolom Assane Ndiaye nga ci fekk Assane Ndiaye boo xobee ubbee xolam Thione Seck nga ñuy fekk pourquoi parce que loolu lu yàgg la lu yàgg la loo xam ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa jiitu maanaam daal tey dafa yàgg donc kon moom inculqué nañu wax dëgg yàlla ay ay ay valeur te comme j'ai l'habitude de dire nit ku la yar jàngale métier parce que man moom moom a yar jàngal métier man xaw ma sax fi mu nekk ni yàlla xam na ne damay wax ni rek waaye billaay barka alxuraan xaw man xaw ma sax laa war a wax mm-hmm. waaw mm-hmm. Mm-hmm. di waaw maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu àdduna bi yëpp rawatina waa Sénégal. Mhm. Euh, yéen tamit maa ngi leen di jàll di ko jàll euh, waa Sénégal yëpp waa mhm. Afrique waa àdduna mais rawatina suma mbokki artistes yi. jërëjëf ñi gannaaw bi ñu la jàllee ñu indi ci ki nga xamante ne moo bawoo di Thione Seck. waaw Thione de man je pense que wax ji moom benn la. à part bett gi mu bett nit mhm. euh, noonu la nag xam nga nit moom da nga ci bi muy dund. Thione ay réaction mag yëpp daf daan sax bettaate. parce que nit dëgg la donc demam gi aussi dañoo yeewu ñun ñëpp mu bett ñu. Mhm. waxuma la artiste sax mais képp ku nekk ci réew mi. wala ku nekkul sax ci réew mi nekk bi bitim réew yaa xam sénégalais nga wala doo sénégalais yaa xam jullit nga wala doo jullit waaye yàlla mas na laa baax nga déglu benn ci way Thione Seck. Mhm. tey jii ni ah, ah, bi nga yow amul la naqari. Mhm. waaye daf fekk nag ki sañ a jël. te moom moo jël. man dama am semaine bi vraiment naqar yu yu doy waar te barki laa suul sama grande sœur ci Tivaouane. tey jii ma yeewu sama grande sœur ma bokkoon léegi bàyyi tey jii bu ma ma yeewu ñun ma aussi sama benn grand frère dem ñu di ko wax. tey ma ñu ñu ñu ñu ma bokk moom monde culture bi donc vraiment métti na métti na mhm. trop. Mhm. mais yàlla nag moom mooy yàlla comme ni ma ko mhm. waxee rek. vraiment ñoo ngi koy maa ngi koy jàll njabootam ah, di ci jiital laminaar euh, di magu waali di ci teg waale ak ñoom Alioune ak ñoom ñëpp ak ñoom moom mi di ko jàll ci jaaga euh, ba ki dem rek maa koy xool ci Facebook bi. ma xam ni daal yàlla yàlla te maa ngi dégg léegi ci ñu ni. Mhm. Euh, vendredi moo nekkoon anniversaire am. Mhm, barki dem. Mhm. barki dem bu ñu teg ci ñaari fan. yàlla jël ko. donc mu mel ni que rek moom daal vraiment daal euh, li ma mën a wax daal mooy la woon. nit ku dëggu la woon. nit ku nit ku mënoon liggéeyam la te fonk ko te tegginal ko. mënoon na liggéeyam fonkoon na ko joxoon na ko ay. te loolu te aussi amoon na respect ci naataango artiste am yi muy ku mu mag ak ku mu maasal jamono. man xam naa li may wax man Alioune Mbaye ndeer bu baax. Mm-hmm. man yàlla dafa def ci kattanam adduna yëpp xam nañ dama sës ci ñoom rek. comprendre naa leen xam naa leen bu baax ñun ñëpp nag. Mm-hmm. coon daal nax nañu ba dem rek yàlla na ko yàlla yërëm. Mm-hmm. te xare ko àjjana maa ngi koy jàll waa Sénégal gépp vraiment. coon sama xarit la. waaw coon sama xarit la tey rek laa mas a xam ni coon def na ma lu ma metti mooy dem. Mhm. bàyyi ma mais coon dafa nekk koo xam ne man ak moom ñoo màggandoo. Mhm. nekk ay xarit depuis bu ñu nekkee xale man na yàlla dafa def dama jógee Saint-Louis ñëw fii rek euh, yegg si fii Dakar yegg si Dakar euh, yàlla boole ma ak coon. Mhm. ñu nekk Pikine dam daan dem këram di fa yendu mu ñëw sama kër di fa di fa yendu amul lu ñu partage wul ma koy gunge balafon muy joué suñu paree jël suñu kalaandoo ñibbi Pikine yàlla def sama diggante ak ak moom mu nekk vraiment xaritu bu rafet bu sel bañ na ko ba dafa doon wax waali ne ko yow soo ma gisatul na nga jàpp kii sa papa la kii sama xarit la sama papa la man ak moom différence bu nekk xëj la jaar na suñu diggante. Mhm, mhm, mhm. donc euh, mais man li may retenir tey comme bisu tey bi nii la mel xaritoo bi moom dama koy teg de côté mais coon li mu représenté Sénégal laay wax. parce que Sénégal ñëpp seetlu nañu ni coon c'est un très grand artiste c'est un immense musicien un très grand chanteur boo xam ne il chante vrai il chante pas mélodie baax yu dëgër lay am texte yi nag moom mooy li nga xam ne moom la ko ñëpp a waaw ah, parce que dem na ba reconnaître que ni un chanteur c'est pas seulement boo xam ne que da koy entretenir nit ñi mais aussi koo xam ne que dafa nga war a participer ci vraiment éduquer surtout les jeunes générations par les messages mm-hmm. Mm-hmm. kon nag tey mën naa jàpp ni Sénégal yëpp ñàkk nañu mais le monde artistique sénégalais moom ñàkk parce qu'il des piliers mm-hmm. Euh, de cette musique sénégalaise un peu partout dans le monde et il a il a il a bien bien bien mérité vraiment d'être appelé un des ténors de la musique sénégalaise. Mm-hmm. nga xam na mbir moo xamante bu ngeen seqoon boo xamante ne na la euh, ci moom loo ci wàllum jëflante. waaw coon coon coon xam nga xaritoo du weesu ki lay nemmeeku koo xam ne que saa yu toog di yónni say xarit naan seetama saa waa ji kooku sama waay la ndax mi ngi ci jàmm ndax kii bañ na ko sax ba su man ko ne maa ngi dem Fuuta hmm. mun ma yow waroo dem Fuuta yow Sénégal gi nga bokk Dakar nga bokk hmm. waaw parce que seen coon nekk na koo xam ne kii par exemple bi ma feebaree deux mille six dellu si kon moom moom moom moom laa invité mu ñëw pour témoigner au niveau de la RTS ci émission DJ Prince pour mm. wan waa Sénégal que ni baamal bi ngeen yaakaaroon ni yàlla def na leneen mais mi ngi fii te xoola tey mm. man maa ngi mm-hmm. Mm-hmm. moom moom mi ngi mi ngi mi ngi jëm ci mm. place bi nga xam ne mooy dëkk mm-hmm. donc euh, mën ñu def lu dul ñaanal ko yàlla di ko jaale waa Sénégal yépp nag di ko jaale ñoom Waly ak toute sa famille mais aussi di ko jaale képp xam ne ki melomaan nga di apprécier nga xam ne musique sénégalaise joué na ko si àdduna bi. Mhm. Aliou Ndate ñu bàyyi la ak moom quelques mots rek en français avec Baba Maal. Baba euh, nos condoléances le Sénégal. ma suuf di leen ne si gindi gale di ko jaale waa Sénégal yëpp. di ko mhm. jaale waa àdduna bi yëpp. Mhm. parce que coon moom coonu ñëpp la euh, nit ku baax nit ku jullite. nit ku dëggu nit ku tabe. def naa nag dit doomu aadama ma boo boole yooyu yëpp dajale ko. ah mhm. mooy sa passeport mhm. Mhm. waaw waaw mooy passeport am te vraiment de mos sama bett waaye bii bu ma betti comme bii euh, defe naa mosul am waaw lan moo la gën a marqué ci moom Thione Seck euh, ci nit ki ak jëflante bi ngeen seqoon li ma gën a marqué ci moom mooy musique bi li muy yaatu yaatu yëpp moo doon sama gën a xarit moom laa si gënoon sës waaw yàlla dafa njëb boole moom sama mag loon ba pare bëggal ma boppam fu ñu mosaan daje day jël loxo dugal sama biir poche dama mu fekk man maa ko moom. <laughs> loolu moom dafay loo xam ne dafa rëy li ma gënoon marqué beneen bi bu si topp mooy dañ ko mos a tuddee drapeau ñuy ñëw stade dem yóbbu na dañ ko tuddee drapeau il faut mu ñëw teew. <laughs> bi mu ñëwee teew nekk ak moom dégg gars yi di sargal di joxe drapeau bi yëpp man mii la ko teg sama wax ne ma joxeel. <laughs> xam nga loolu teraanga musu mënu ko mënu ko weesu. leneen li ma marqué nag te mu te mu te mu te mu te mu tooyal sama xol bi tey mooy si weer yi passé mhm. projet projet bi muy def nii mhm. dama ci way muy ma def say partition yóbbu ko mu ne ma sa nopp bi chaque jour mu woo ma mhm. après ma dem fa mu ne ma mais yow sama waay yow xam nga yaa ngi toog di xalaat mais ñun àdduna kenn xamul on n'a jamais fait d'album il faut ñu def benn album ensemble ma ko tànn samay morceaux naan ko bàllago ak bi ak bi ak bi mu ne ma man damay ne ma il faut ñu ko parce que àdduna kenn xamul ndax yaa jëkk dem wala maa jëkk dem mën a garan kenn demagul nañ dund lu yàgg insha donc lii bu xëyee tey ñu mu dal sa kaw daf lay dafa am lu ma lay def waaw parce que tamit c'est vrai que da ngay nekk ak nit ki si àdduna yàlla di wane ay yu bari te nit ki dekk dina sentir doo fekk yàlla moo koy waxloo yàlla moo koy pour man amoon naa temps jël temps def lu ñu war a def bu ñu war a mën def analog ensemble def ko mais lii li yàlla dogal lii li yàlla dogal en maa ngi koy jaale waa Sénégal yëpp maa ngi koy jaale mbokkam yi maa ngi koy jaale adduna bi yëpp njabootam képp ju parce que man njabootam si njabootam laa bokk mhm. te doom yi aussi ñoo leen bokk jur doom yi ñoo leen bokk jur